ñu toogaat ak nag keneen koo xamante ni kenn dootu ko présenté nekk nit ku baax jege lool ak Ajaratu Ngoye Fall mm-hmm. nekk nit ku laaj bi ku baax nitam nag si nit ku baax donc Sayda Soso maa ngi lay fekk bu baax ñaan yàlla ñu fekk ci ay déwéni déwén macha allah ci barke yonent bi di nuyu ñuy seetaan ñëpp di ñaanal kenn bañ a sant nañ bu wér. jërëjëf nekk ko ci protocole bi en même temps nekk ci vraiment organisation bi na ko waxee woon sa màggal bi nga ko defee ci jàmm ndeysaan. wóolu la teg lépp ci sa loxo ban nga senti nga gën a amal sa bañ évident wallaay lépp rek borom kër sama jarbaat sama lépp mu ñëw nag wax dëgg yàlla mooy maquillage sax bu ko bëggee man lay wax sax bu ko bëggee man lay wax mbubb sax bu koy jënd bu cher su ma d'accordul maanaam fi ma teg daal dafa jëm sax daw sama yaram parce que confiance cofeel bi amour bi njabootam borom këram loolu dafa rëy li fi nekk yëpp yëpp yëpp yëpp sama loxo la loolu confiance ay ne ma lii ak lii ak lii la ñuy def loo def noonu sax loolu gis la otom bi suy dugg suy génn buy sori nii sax man lay woo sant yàlla daal yal nañu yàlla defal ca ñu gis tamit ñu gis tamit ni mu la jëlee lépp jox Mouhamed yaa baax Khalifa Mbergane yaa baax ñu gis tamit ni mu jëlee teg ko sa loxo tax na yow tam yaa ngi ñaq rek maa lay may maa ngi ñaq rek lépp jox la yow ba mu xam ne yow def na donc gis nañ tamit taxaw gis nañ lépp waaye tamit gis ne da nga ànd ak moom te yàlla te yàlla parce que man sama famille nee na ñoom bu ko ñëw ma bëgg nit wala nit sas ma sax dara ma dem nit parce que damay dem ak yéene damay dem ak parce que dinaa ànd ak sama njaboot barke yonent bi damay naan Serigne Touba ak Cheikh Ibra laaj ànd ak sama njaboot Pastef bi la parce que alal bi ma dalul li ma ca daal mooy yëg mooy loolu la ma def bu ma xoolee rek day day day gën a am courage te am na loo xam ne du ma ko sax moom moo ko waxal boppam ba kii dee ba Dakar si màggal booy Fall dama koy ñaan moom ak aske yàlla na jàpp leen di weer di leen wéy ndax confiance bi moo mën a wax lépp ndax moo mën a lépp macha allah màggal gi nag amoon na toj bari woon na tubaarkàlla nag tàmbali waaye dafa mel ne tàmbali dafa xaw a wax na ko waaw toujours si yokk loxoom la nekk mais borom bu baax di sëriñ bu desee ci moom la toujours day yokk waaye tey bés bi moom moo ñëw rek daaw mel ko moo ko relaxal waaw day am bis yoo xam ne du koy relaxal waaye ana masque bi mi nga xam ne mooy mooy protection laa xeen sabado laa waaw waaw macha allah tey dafa ñëw mayaat leen masque bi xamal leen rek Euh, coronavirus bi ba léegi mi ngi ci dëkk bi nañu respecté consignes yi Euh, gis nañ mi ngi ñëwaat léegi non moom laay jëli ji. waaw moom laay jëli ji léegi mën nañoo xaar ba ñaata attaque. non attaque bii moom moom mooy sax est-ce que du fa yem fa lay yem. <laughs> ay merci beaucoup sama rakk ji gis nañu lépp suñu xol sedd yaa rabbi ñu ko ñaanal rek yàlla na fi yàgg te wër ñuy tànt ba diggu grand tey ñu dem di fa gàmmu jee ci barke yonent bi ndax Serigne Touba tànku kanam la ci aussi tànku kanam laa def na ko ca màggal ga ca Serigne Touba tànku kanam gàmmu gi yaa est-ce xamal ci biir saalam lañ ko daan defee bii may troisième gàmmu sëñ Askia moo doon toog di diñu di ñu waar di ñu wax ci àddina ñu def deuxième gàmmu saalam fees den kenn xaju troisième gàmmu nañ dem ba quatrième incha allah Boy mooy koo xam ne dangay wax muy affront moom jéggu na du bàyyi faraj fiic faj rek yat dal na fa mu daal عيني يا بيض dem yaa fa xaw xooloo yaa fa xaw dem lu ma wax la ci moom waaw ba ngir nga jëriñoo fa moom waaw moom moom li lu moom gën na lu moom nee la fi amu fi saa yoo la fi kii la la doy loo sa baage wax la waay wax la day saa dégg ko neex la jar ma yàlla ko am ikna teew ma waay

lépp lu baax la borom jamono am ko doy na waay Saliou la ñu doy la sang baa ngi Thank you. Bye.